jërëjëf xamal nga noo lu defal nga noo lu nu mënutoon sëriñ bi mooy fekk doxu ay at mu defal nga noo lu nu mënutoon bi mooy fekk doxu ay at mu dox ko fii sa yàlla ñu ko remiser baaxul bu ñu ko remplacer baaxul léegi nag jàpp naa at la waa père lii dañ ko mboot waa mboot day mboot a xew ah <laughs> dafa yéeg ne mboot attention ñaari xale yi jàppante nañ Ibra Gabou Baba Yo ah. Baba Yo la ilaha Ibra Gabou bot na Baba Yo bot mu mësta am ci làmb waaw parce que mooy li ma la doon wax nee naa la ñii ñi ngi déparé ci kaw moo làmb bañ na wàccaat na bëgg na koo bëtt Mor Lamp bañ na bëtt na ko bëgg na koo wër wër na ko ndomb ma gang rasu na na ba ci kaw góor gi duf la ilaha illallah daan eh, bi ndaanaan la ndaanaan la waaw jaayul dafa lu la njaabal <laughs> ah, dafa bëre eh. Lamp jommi na xanaa ko da koy xatar bi eh. wala mbot lay doon la ilaha illallah booy bawal bañ na xatar bi lay doon wala mbot xatar bi mbot mbot la maa la waaw waaw. xale bi bëri naa moom de wax xam doon lay. waaw doomi jàmm gën Abdou Aziz di nit ku baax nangu sonn ci xale yi aussi sonn ah. ah. la xëy li ñu doon wax ci Ada Fass a ngoog expert dafa mën a bëri daanaan la ba mu jëlee tànk ko bañal lool wallaay wallaay wallaay <laughs> champion la bu xale bi day dem ci yoon nekk yoon ba na de